jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëfati mbokku internet yu 5M TV Sénégal amati nañu mbégte ak bànneex di ànd ak yéen di leen dégtal xibaar yi ci seen chaîne bile El Malick Ndiaye mu ni kon la ñu bëgg mooy ab élection bu libre bu jaar yoon boo xam ni dañ cay boole nag képp koo xam ne rek bëgg na nekk njiitum réew loolee la askan wi daal di soxla kon Ousmane Sonko na desandi di nekk tamit éligible maanaam rekk war a bokk ci jongante falum njiitum réew file ci Sénégal ñu ni ñoom kon loo rek la ñu bëgg leneen li itam bokk na ci gën ñax askan wi rawatina ndaw ñi ñu dem rek jëli seen carte électeur ca noone itam ñu daal di booloo seen biir rek amal ab alternative leneen li itam bokk na ci programme bi nga xam ni moom la ñuy fësal ñu bàyyi leen kon ñu jël matukaay ya ca war ñu daal di koy waxtaane jëm ci wàllu parrainage yi daal di booloo seen biir itam daal di amal ab campagne bu am solo boo xam ni fu ñu toogati ci réew mi bi dinañ ci bàyyi xel beneen bi itam mooy presse bi ñu daal di leen bàyyi ñu amal seen liggéey ak yi tamit ay programme yoo xam ni candidat yi ñoo ko moom te mën leen mën nañ leen ca jàppale ndax atum 2024 bi kon ñu ni loo xam ni duñ ko fàtte ndax coppite bu rëy la ñu bëgg am ci réew mi ak ndam bu rëy Alioune Tine moom njiitu Africa Jom Center àdduna kon jëm ci wàccaayu campagne bile mu ni kon mbiru injustice mooy jaaxal ñëpp rawatina ci candidat bu majorité bi lee nga xam ni jamono ji ma ngay amal ay mbiram nam ko neexee ginnaaw yenn di candidat yi nga xam ni dañ leen bloqué ku ci mel ni Bougane ak gàkku mu ni nag li gën a doy waar jëm rek ci ab conférence de presse ba ñu bëgg amal mu ni kon impartialité la ñu bëgg maanaam ñu yemale ñëpp nag ci mbir milee xam ni nag ñëpp ci daal di bokk ñëpp lañ ci war a dugal ca noonee lu jëm ci wàllu administration jëm rek ci wàllu justice ak yi nga xam nit ñoo ñoom itam ñu xamal leen ni kon ay candidat ñoo génn ci réew mi di doxantu waaye itam di saytu askan wi di xoolu leen metti di xamle itam seen programme jëm ci jongante falum njiitum réew file ci Sénégal la